mën ay arrestation et sans bruit. waaw parce que am na ñuy wax sax euh, côté ministère des finances am na ci ñu. oui ñu fay teg oui il y actuellement sept arrestations. Mhm. au niveau du ministère et dans ça entre dans le cadre de la reddition des comptes. Mhm. xam nga gars yi bon bu dee nit ku ñu xam la. ça peut faire truc quoi mais effectivement pour dire que ni euh, les choses avancent sans bruit. mais mais mais mais Pape ñi daw nag. Euh, sur le plan euh, légal naka la réew mi mën a def ba jotee ci ñooñu noonu. ba mën a jot bu dee ne bu dee dañu jël ci alalu askan bi ñu delloo ko. looloo tax ñi nga xam ne nii jot nañu daal di. xam nga xam nga bi sénégalais yi de woy euh, affaire bi yéex na yéex na yéex na. Mhm. Euh, oui certes euh, justice dafa laaj sérénité dafa laaj euh, prudence. Mhm. mais tamit foofu la foofu laa jàppee ne erreur am na quoi. Ah. parce que man jàpp naa ne président Diomaye fal nañ ko le 24 mars 2024 le kenn warul génn. waaw. parce que en fait euh, tey jii nii ils ont l'obligation de ramener tout ce que le Sénégal euh, possède ak ku ko mënti yor. ak ñee dañoo jàngi waat ak ñee na xaw ma la dañoo dem ma ñëpp fu maanaam obligation wu. Mm-hmm. régime bi la dem jëli ji leen ñoom ñu ñëw répondre mm-hmm. mais on a parlé fii euh, du rapport Prodac. yuuxu nañ xataraayu nañ wax nañ lu nekk ne rapport boobu amul. finalement am na wala amul. am na. na kon seen i faw faaw ñu ñëw tontu ci lii seen maanaam euh, comment il s'appelle encore. kan ci. Euh, Mame Mbaye Niang. na Ousmane Sonko euh, da ko condamné dañoo condamné Ousmane Sonko pour six mois ak dédommagement wu Mame Mbaye Niang à hauteur de deux cent millions. Mhm. na ñëw jël si deux cent millions na ñëw. Ah, loolu baa wóor na. man bay te lu dañoo daan Sonko doo xam ne xale buñ la leen njamalaa wuy sa yaay mu ne sama yaay du ma wooye. <laughs> Mame Mbaye dañoo jël si 200 millions ko paaka Mame Mbaye kaay say 200 millions na yow jël si 200 millions ndax ko moom. nañ ñëw ñambalaa kaay wuy sa yaay. xam nga keroog fii kenn woowee ko paaka. <laughs> <laughs> Eh, fii moom eh, ay ay ay dos de chameau naar daal <laughs> lañ ko wooyee dañoo jóg si deux cent millions mm-hmm. mais parce que fii la gars yi toog wax fi lu nekk quoi mm-hmm. def conférence de presse yuuxu kii fëgg table rapport amul porter plainte ku wax nga porter ko plainte waaw léegi nañ ñëw nag am na ñu porter plainte bu dee rek ay gor gor rek lañ ko séqal bu dee lan doon wax rek dëgg la ci ñoom. waaw am na si ñoo xam ne dañoo dem pour jàngi rek. waaw léegi waaw d'accord amul problème dañoo dem buñ leen convoqué dina ñëw am ñoo xam ñëwul nag moom obligation de l'état du Sénégal mu jël si leen parce que mën na nekk aussi. waaw comment sur le plan euh, légal naka lay demee euh, procédure yi ak yooyu noonu. xam nga xam nga xam nga tey jii nii euh, procureur. Mhm. mën na lancer un mandat d'arrêt international. international ok. la police bon. en forme d' association ou lu mu munti doon am na organisme international Interpol. Interpol oui. Hmm? Mhm. voilà donc yooyu noonu yëpp ay mécanismes et puis y a des coopérations ak dëkk yi. Mhm. coopération judiciaire yooyu noonu effectivement ça permet à ce que xam nga moo tax euh, gars yi bu ñuy faral woy président kenn mënu koo atte dañuy fàtte. les gens oublient que Hissène Habré était président de la République. Mhm. il a été jugé ici. les gens oublient que le président Aziz de la et pour pourtant il fut président de la république. président de la république du lu la neex rek nga def de kon mu yomb sax di. am nga cinq ans yoo xamante ne lu la neex nga def reyal ñëpp. kenn du la nañ sax ay plainte ak yooyu noonu yu euh, ak it. ci am na yu kii def sax. Euh, mais yu yóbbu cour euh, kii international te boobu ci ci ci kii wu. cette cour là aussi a jugé plusieurs présidents Juan Branco ak ñi mu àndaloon ci. parce que temps temps bi kii di gën a tàng. mais mais en tout état en tout état de cause. Mhm. immunité tekkiwut impunité. maanaam président bu ñu la falee pour cinq ans rek lu la neex defal ci réew mi kenn du la mën a toppee dara. Oh. ah loolu amul de. ça n'existe pas du tout. alors donc kon képp koo xamante ne parce que si je parle de lui aussi man dama jàpp ne seen appel téléphonique boobu di kii nii taxawul de waajur du ñëw de. lu tax moom nee na day ñëw ke day ñëw ah ba foo foo jàpp ne du ñëw. xam nga mu war a ñëw. na ñëw bisimilah euh, bisimilah waaw moom it na ñëw. pour moom dafa ragal ñëw lu muy ragal. ñëw gëmuma ko de lu tax gëmuma ko man waaw mais xam nga moom moom ku nekk yaa gëmuma ne waa mm. léegi nag ñi nga xamante ne dans le cadre de la reddition des comptes. Mm-hmm. ils ont des comptes à rendre. c'est l'obligation du gouvernement, c'est l'obligation de l'État du Sénégal d'user de tous les moyens possibles pour indi loolu parce que loolu moom moo tax ñu teg leen fi. tous les moyens possibles et conventionnel pour delloo si waat dërëmu askan bi fépp fu mënti dugg ci àdduna bi. ak ku mënti doon détenteur bi nag. ku mënti doon détenteur bi obligation la ci état wu Sénégal mu andiwaat bépp dërëm boo xamante ne askanu Sénégal moom moo ko moom. Ah, question wu prêt nooy ñu bañ ko bañ ñu koy bàyyi xel. mais y en a en et en a plus finir. te euh, bi président Diomaye doon wax naan ku ñëw euh, dénoncer nangam il parlait de ces prête-noms là. waxul woon auteur euh, principal des infractions prête-noms ci diggante boobu noonu mais am na ci ñu bëri ñoo xamante ne dem nañ wuy ji. joxe waaw oui bien sûr donc. actuellement hmm, non waaw bien sûr si njëkk rek. am na ci ñoo xamante ne bon ça sa ça sautait à l'œil parking bi nekkoon ci virage ba. Euh. boobu noonu dafa jékki-jékki rek parking bi dama hmm. yëg. ana ana ña fa doon liggéey. ñoom Amadou hmm. Sall ak euh, Mansour ak ñeneen ak hmm. ñeneen. day jékki-jékki rek ne mes. parking baag lépp ñu tey France fu mu jaar. mais loo yooyu noonu. Euh, effectivement ce sont de choses jàpp naa ne. keneen nit. Mm-hmm. képp koo xamante ne. président Diomaye dañ koo dénk. ne ko mu saytul ñu. lépp loo xamante ne tamit rëcc na andil ñu. lépp loo xamante ne war na tous les moyens légitimes légaux conventionnels l'État du Sénégal doit les utiliser pour rapatrier lépp luy fonds lu nekk ci àdduna bi te Sénégal moom ko. d' euh, ci wàllug yoon ba tey am na keneen itam kuñ cay tudd muy Abdoulaye Sylla ba ciy tudd sax ay lu aju ci ay or muy euh, ay euh, lu takku sax loo xam ne nii moom tamit fi mu toll nii mu nga cay loxo yoon. xam nga moom bokk na ci një ñi njëkk joxoñ baaraam je ne dis pas que c'est vrai euh, di leen euh, tuumaal prête-nom Ecotra <laughs> Ecotra mhm. bon euh, dañ doon wax ne prête-nom wu Marème Faye la éco Macky Sall joxoon na ko ay marché ci jam dañ ko doon ko tuumaal bon marché marchés à Diamniadio aussi man en un certain moment donné non seulement visité naa ko eggul mais échangé naa li ma la ni yàgg na de échangé naa lu yàgg ak ñoo xamante ne ay travailleur Ecotra lañ mhm. ah bon moment boobu noonu ak ay difficultés yoo xamante ne ñoom lañ doon euh, kii la plupart disaient que ni Ablaye Sylla dafa daw parce que dafa joteeg euh, le régime du président Macky Sall euh, mu daaw dem Dubaï wala nangam et cetera y avait beaucoup de choses qui se racontaient mhm. ci côté boobu noonu effectivement il a bon xamante woon na avec euh, le couple présidentiel. Mhm. am nañ problème à un certain moment euh, génn na dëkk bi dellu si na ne euh, comment ça s'appelle cinq cinquante. Mhm. PN waaw waaw juróon na fi kii sax. ci TikTok bi <laughs> très bien yaa yaa gis <laughs> léegi nag finalement nekkul candidat. Mhm. beneen procédure ñëw na. il est présumé innocent. jusqu'à ce que ñu établir avec des preuves sa culpabilité ba moyen de recours yëpp jeex mais fii mu toll nii aussi bien lui Lat Diop que tant d'autres ils sont présumés innocents kenn waxagul ne ñoo def nangam léegi nag liñ ñu lay reproché bu ñu àndee dara teg ci table bi ne la yaa def nangam ki la ko wax noonu moom mooy prouver on ne plus à l'ère de Macky Sall ou présomption de culpabilité ici c'est ki la xamante ne moom moo la jiiñ mooy prouver mais bu prouver ba pare yow yoon may na la nga prouver l'existence de ton innocence képp ku ko ci def dañ lay bàyyi nga ñibbi sans tambour ni trompette ku ci mel ni maître El Hadj Diouf mu ngi naan lu ni euh, ay affaire politique rek chanson boobu noonu di nga ko dégg ba sonn <laughs> chanson boobu avocat wu Lat Diouf loolu ku dugg génn dina la wax loolu loolu loolu loolu la taxaw doon wax ku dugg génn hmm. dina la la politique la hmm. mais yow xam nga ne du politique Lat Diouf il est il milite où ak Guédiawaye ñu daan la présidentielle euh, euh, législative 2022 ñu ñu daan la présidentielle 2024 ñu daan la ca Guédiawaye kooku kan moo ko ragal ci politique ce n'est pas Ousmane Sonko quand même ce n'est pas Ousmane Sonko moom mooy am problème mu la Diop ci politique il mm-hmm. y aucune connotation politique dans ces procédures là aucune mm-hmm. amul dara dara dara luy politique amul dara lu xeet lu laale ak lu ni mel et d'ailleurs yaa ngi gis ñenn ñi sentant leur culpabilité uh-huh. voilà sentant les procédures venir chez eux uh-huh. tëpp nañ miiru APR créer seen i mouvement ne ay candidat lañ pour ñu ne bu ñu leen tegee loxo ñu ne li ma doon candidat li ma doon tête de liste moom moo tax tout le monde ne peut pas à l'APR waaw am na ñoo xamante ne dañoo génn uniquement pour nekk tête de liste pour bu leen wooyee ñu ne woy woy woy li ma nekk tête la damay gagné bërëb sàngam bu ñu mënoon gagné bërëb sangam tey jii nii président Diomaye du mën a diriger. est-ce que du jox raison kon ñenn ñi doon wax ne timing bi peut-être. le moment bi ñu commencé. réduction bi tout ça ak li euh, timing bi. mën na ça peut prêter à le temps de la justice. n'est pas. n'est pas le temps des acteurs politiques. oui ça ça donc kon tey jii nii justice moom moo téye ki euh, procédure yi di doxal. Hmm. politique bi di doxal. Hmm. président Diomaye yoonam newul ci agenda wu justice bi. Hmm. premier ministre Ousmane Sonko yoonoon newul ci agenda wu justice bi justice agenda bu dee nag procès dafa war a taxaw le 17 novembre da kay taxaw waaw. c'est euh, bon c'est un dimanche hein, le 17 novembre. waaw <laughs> le 16 wala maanaam ginnaaw suba la élection yi. procès bu waree am day am. Mhm. sans état d'âme. parce que. il faut que il faut que euh, c'est-à-dire régime transitoire euh, parce que euh, quinquennat au président Diomaye mhm. pour man régime transitoire la buy war imposé imposer ci Sénégal par force dañu war di am un mécanisme boo xamante ne képp ku gérer alalu askan wi dinañ la saytu ba mu mat sëkk parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo bëgg imposé imposer ci Sénégal mhm. benn immunité politique quoi mhm. tant que tu es un acteur politique waruñu la def ay procédures judiciaires tant que élection mi ngi jege si waruñ la euh, waruñ def procédure judiciaire loolu mooy lan. Hmm. parce que élection mu ngi jege si rek que loo mënti def tu as da nga am une immunité. Hmm. loolu la ñu bëgg gëm loo mënuñu koo gëm. parce que élection mi ngi jegle rek le timing est mal choisi nañu xaar ba après élection xaaruñu dara. te gisoon nañu élection yi fi jàll saytu bi bokkul dara ak élection bi un. deuxièmement mooy si diggante bii nii. Hmm. même par deux mois des élections kan lañ fi mën a teree bokk. loolu yaa ko Macky Sall kii à l'espace de on jour nga jugé nit dem appel ak moom dem cassation loolu Macky Sall rek a def Macky rek moom mooy téye procédure yi di ko parax paraxee pour ñu mën a rajee kooku noonu def na ko Khalifa Sall def na ko Ousmane Sonko. Sonko. tey ngay xam ne Ousmane Sonko du moom parce que lijjantiwul la justice biy def balaan leen gaawal que dinaa ut juge bu ma korseel pen yi gis nga affaire Mame mbay Niang diggante première instance ak appel bi ni mu gaawee. Hmm. loolu loolu wonni na. bu meloon ni ñoom nag bu meloon ni ñoom noonee lay demee parce que ñoom li tax ñu njortu lool parce que noonu lañ mel. Uh-huh. te dañ koo def mu ne fàng bi ko Macky Sall di def Ousmane Sonko Lat Diop ngaangul maître El Hadj Diouf dénoncé wul bu ko Macky Sall doon def Khalifa Sall à l'espace ci benn temps record mu jóge premier instance ba cassation ba rabat d'arrêt pour éliminer rek des candidats bi ko Macky di def ñoom ñii di wax ni def waxu ngaanguñu ils n'ont pas dénoncé rétablir la justice ba du exécutif moom mooy définir l'agenda de la justice donc ay question de timing yoonu président Diomaye newu ci ay question de timing judiciaire yoonu premier ministre Ousmane Sonko newu ci mhm. justice bi man li ma xam ci ñi nga xamante ne tey jii ñoo ŋànk euh, ces procédures mhm. du procureur euh, en passant par le juge d'instruction ba ci pôle financier ak yëpp mhm. ñooñu du kenn ci njiitu euh, exécutif moo laa leen defal ñu def wala bàyyi ñu bàyyi D'accord. Ça, je peux le garantir aux Sénégalais. Il y un système judiciaire performant. Mhm. Il y une indépendance effective de la justice. Mhm. képp ku ñu ci daan wala ñu relaxé la dinañ xam ne c'est à la suite d'un procès équitable et que les procès sont euh, publics et contradictoires d'accord vas euh, au tribunal mhm. déglu xool sénégalais yi nga xamante euh, au nom de qui la justice est rendue dinañ xam lii ñu rendre seen tour est-ce que dëgg la am déet d'accord sànq